ci 1963 gannaaw bu ñu ubbee jumaa ji ba noppi la ñaan Senghor boobu mooy président de la république Sénégal ni ko daa bëgg mu indi ko fii mu siyaari si sëñ Fallou Mbacké ndax yëg na doole yoonu murit yëg na sëñ Fallou li mu liggéey ci àdduna euh, bi te moom foofee mu nekk kilifa la fa gu mag goo xam ne gi moo fa jiite mbooleem julli ja nekk foofee ci li ñuy wax nord Nigéria gi féete gànnaar ci Nigéria nga xam ni moom ci yooyu jamono moo yor darajay xalif général foofa ndax titre bi nga xam ne moo lañ koy tuddee foofu mooy le Sardono du Sokoto Sokoto dëkk la boo xam ne bi mooy capital am fa la daan nekk nga xam ni Sardono mooy ka nga xam ni mooy kilifa jullit bu Sokoto nga xam ni mooy yilif mboolem julliti Nigéria yëpp ba mu ñaanee loolee nag Senghor Senghor wax ko sëñ Fallu ñaan ko ko sëñ Fallou nungul ko ko teeru ko fi ngan goo xam ne gi ngan gu rëy rëy la goo xam ne gi ah, am na ay jeexit ndax ku dem ci archive rajo Sénégal ak archive journaux yi ci yooyu jamono ah, ngan ngana ma demee lépp nga ca sëñ Fallou woote ko ngan gu rëy ndax gannaaw dafa jógee ci réew mu rëy xam ne ay millions lañ ciy jullit xemmem gis ci sëriñ tuuba bëgg ñëw siyaare sëñ Touba te jaarale ko ci sëñ Fallou loolu tax sëñ Fallou réyaloon ko ndax sëñ Fallou moom lépp loo xam ni tudd nga ci sëñ Touba rek day ko daal teg ca kaw te amuñ lor soxla ci loolu mu woote ko nag ngan goo xam ne gii teeru nañ ko fii ci dëkk bi teeru boo xam ne bii ni ngi màggal di mel la mel ndax dañoo mujj def ci penc mi ni ñu daan def bu màggal jotee lañ def ñeenti tribune la ñu def tribune d'honneur tribune A tribune B tribune C woo ci kilifa yépp ñi nga xam ne ñoo nekk ci aada yi ak ci diin yi ak ci nguur gi ak ci commerce bi ba bis ba jotee Senghor président de la république moo ànd ak moom ca Ndakaaru ak cortège officiel ak ministre yu bëree bëri ak parlementaires yi ñëw fii ci Touba dix heures la ñu si suba teel ci dix heures sëriñ bi recevoir ko ànd ak moom dem ca tribune ba sëriñ bi sant ma ma def discours ci français boo xam ne bi ci laa ko dalale Senghor def discours moom am sër Ahmadou Bello def discours sëñ Fallou waxtaan ci wolof muy teeru boo xam ne bi benn teeru tolluwu na bañ fa jógee sëriñ bi ànd naa moom yóbbu ko ci jumaa ji jiite ko fa julli ba mu fa jógee yóbbu na ko ci barab ba mag mu siyaare mu jëlee ko fa yóbbu ko ci kër gi añeel ko fa añ bu rëy boo xam ne bi ak mboolem kilifa yëpp ci lañ bokk ba takkusaan jotee mu tàggoo ak sëriñ bi dellu lii mooy li nga xam ne moom laa seere ci mbirum ñëw ak sër Ahmadou Bello bi mu ñëw fii ci 1963 bi muy ñëw nag fekk na julli nañ jumaa ji ba noppi ndax ginnaaw bi ñu jullee jumaa ji ci 7 juin 1963 gannaaw ga la ñu sàkku ñëw fii sëriñ bi recevoir ko fii nii mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy euh, li ci am te muy loo xam ne liit lees mën a seet fu nekk la ndax ni ma la wax archive yi yëpp ngi ci bu ko ku demoon rajo Sénégal tey bu ñu seetee bande sonore ya seet it dégg nga actualité danañ gis ni dégg nga euh, nii ñu ko teeroo fii danañ ko gis wax jaag discours yaag teraanga yëpp nga ca moom Sër Ahmadou Bello moom yi nga xam ni yooyu jamono mooy yilif mboolem jullit ya nekk ci wetu bëj gànnaaru Nigéria xam ne ay million million lañu dafa bokk ci ñi nga xam ni ñu ngi meññe ci ki ñuy wax Ousmane Danfodio Ousmane Danfodio boroom xam-xam yépp maase nañ ci ni mooy ki nga xam ni moo dugal lislaam ca Nigéria ci foofu fii la Ahmadou Bello euh, cosaano jërëjëf euh, sëriñ Baye Dame Dramé li nga wax ni leer nañ xel mu nekk jàpp na ko it kon ndigal li mooy ñu teerule sëñ bi ganam gi te it ñu xam ne yoonu murit tànki kanam rek la am amu tànki gannaaw kon nam demee woon foofa rek kon yoon wi tamit noonu rek ma doole la kàddu gi li ma ci mën a seere rek ci ñu ko fekkewul moo di moom sër Amadou Bello kilifa la goo xam ne gi ci jëmmam ku amoon taxawaay la xees pecc kere ba muy ñëw fii mant bu ñuul kukk moom la sol muy abay yi waa ma koy sol kaaloo kaala gu rëy loolu mooy li ma ci mën a seera kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa